tey nag ñu fas yéene seq waxtaan ak euh, imam Ahmadou Makhtar euh, kante fas yéene nag euh, waxtaan ak moom ci ay questions yu bëri yoo xam ne day laal actualité bi di ñu manière d'une manière générale xam naa balaa may sori rek dama koy bàyyi sax mu nuyante ak mbokk internet yi imam Ahmad Makhtar kante ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah Coumba Ndoffène maa ngi lay nuyu di nuyu équipe bi nga àndal di nuyu wa Sene Info ak képp koo xam ni. mi ngi topp seen émission yi rawatina émission bi euh, moo xam mi ngi Sénégal di ñu topp moo xam bitim réew. Imaam xam naa fi ñu koy commencé rek euh, ci euh, coow loo xam ne coow Ousmane Sonko Adji Sarr jógaat na te li ko waral di ay audio yoo xam ne dañ ne daf ko wéccanteeg koo xam ne doomi soxna la muy Baye Mbaye Niass MC jur na coow en tant que religieux en tant que ku nit ñi di déglu ñàkkul nga am ci xalaat ana noo gisee mbir moom. waaw tiis laa ci laa ci jëlee ak njàqare euh, ndax euh, dama yaakaar ni euh, lenn ci njabootu suñu mag ñi ñu ngi commencé tarxiis te du ci dossier bi rek de depuis quelques années mën nga wax ni da nga gis ay ñoo xam ni ci njabootu suñu magu diine yi lañ bokk xam ne dañ leen fonk lool ci réew mi te ñu yeyoo ñu fonk leen ndax li ñu jàngale li ñu yar ci ay nit li ñu bind ak seen taxawaay ci diine kon képp ku bokk ci ñooñu war nga bàyyi xel loolu bu baax a baax xam ban statut nga am ak fan nga war a féete réew mi ci diine ji ak ci réew mi euh, te depuis quelques années dañu gis ay sotti yoo xam ni ñu bokk ci kër sunu mag ñu baax ñooñu dañ koy def loo xam ni euh, bokkul ci jàngale sunu mag ñu baax ñooñu te lu ko indi topp pëccëxoo àdduna ak politique nga xam ne mbiru xëccoo la eh, ak eh, parparloo ak yu ni mel te loolu warul koo xam ni dañ lay déglu ci diine hmm. kon nag eh, moo tax audio yi génn fan yi ci mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko tiis laa ci jëlee ak njàqare ndax dafa nekk dossier boo xam ne déjà fi mu nekk nii lëjël na réew mi hmm. ay bakkan rot ci moo tax keroog bu ma gisee sax benn avocat di wax ne Adji Sarr dafa yànj dafa taaru moo tax boo toogee moom rek di nga xam naa nga ma ne waaw est-ce que ñi ànd nañu ak seen sago est-ce que dossier bu mel ni war nañ fiy dugal yu mel noonu euh, kon tam bi ma gisee sëriñ bi. MC euh, mu génn wax ne am na ay audio yu mu jox juge bi nangam ak nangam man damay gis sax ni dëgg-dëgg sëriñ si ak seen njaboot ak sët sëtaat yi. bu ñu sàmmee dëgg-dëgg seen satu seen wàccuwaay eh, dama jàpp ne ay juge di leen woolu sax duñ ci egg loolu mooy sama conviction duñ ci egg mm-hmm. parce que duñu dugg ci loo xam ne eh, dana jar ñu leen di woo ci ay mbir yoo xam ni dafa xew ci ay pénc yoo xam ni du péncu diine ña ko séq tamit lañ ko séqee du mbiru diine mais suñu kër sëriñ si jàpp naan bu ñu demee bar war leen a woo ci réew mi rek dañ leen war a woo ci lu réew mi soxla ci waxtaanu diine waxtaanu jàmm ah ak luy gindi réew mi waaye di woo sëriñ pour di ko wax lan nga waxanteeg ndaw si nga xam ne dafa ne dañ maa siif ngay génne ay audio naan waxoon na ma lii moom muy génnaat di ko weddi rawatina diggante taalibi ak sëriñ loolu lu ma jaaxal la te man fu nekk nii damay gis ne euh, sëriñ bi. Euh, mbay Mbaye mbay Mbaye MC dama gis ne taxawaayam jaaxal na ma parce que wax dëgg yàlla li ma gis mooy euh, sëriñ te moom ma gën a xam bu baax li may wax fi mu war a féete taalibeem mooy taalibeem bu demee am jafe-jafe da koy woo yedd ko ci sutura gindi ko bu fekkee dañ koo tooñ mu ne ko muñal euh, defal nii defal nii bu fekkee ni dafa bëgg a féttéerlu wala tooñ nga ne ko bul def loolu ndax diine lii ak lii ak lii lii jarta wax ci penc mi lii muñ ko loolu moo war a nekk taxawaayu sëriñ euh, euh, mais mënuma comprendre sëriñ nga weer sa taalibe ndax boo xasee ba génnee waxtaan bu ngeen séq rek weer nga ko mu neex la mu naqari la parce que waxtaan waxtaan la rek mm-hmm. waaw loolu loolu moo ci doy waar mais mag ñi sunu mag ñi comme ñoom seen i mag ñoom seeni maam moom xam na ko waxtaan nañu ak façon nit bu nekk mm-hmm. waaye binduñ lépp lañ waxtaan ak nit ñi waxuñ ci penc mi lépp lu waxtaan nit ñi façon nit ku nekk ñëw na ci Baye ñaas ñëw na ci sañ Touba ñëw na ci Hadj Malick mais la ca jib ci pénc bi lu rafet la est-ce que lii est que lii tolloo ak lool par contre li xoolal audio yi nga ci dégg surtout nag man bi ma ci gën a indil njàqare mooy ki ma la li ma wax mooy sëriñ bi ci boppam li nga xam ne moom reconnaître ne moo ko wax su fekkoon dañ ko wax nii rek ñu ne ah Imam Kanté dafa gaawantu wax loo xam ne wóoru ko mais moom ci boppam li nga dégg muy wax te moom mu assumé ne moo ko wax di wax ndaw si ku sa xel gàtt moom da ngay jàpp ne mel na ni mi ngi xiirtal ndaw si ci ne mën na am xaalis ci lii loolu lay niru jusqu'à preuve du contraire jusqu'à que moom mu génnaat wax ne jubluwuma ci loolu mm-hmm. loolu quand même lañ dégg ñun est-ce que xam nga ni lii mën nga cee am xaalis diw mën na la cee jox nangam ak nangam dama yaakaar ni jigéen bu fekkee ni dafay sax jaay boppam damaa ne bu fekkee ni mm-hmm. day jaay boppam wala sax dañ koo siif wala nangam yaakaar ma ni taxawaayu sëriñam war na nekk ci xaalis bu mu ci mën a am wala bu mu ci mën a ñàkk waaye deram ñoŋ ak àq ak yelleefam ñu sàmmal ko ko loolu moo war a nekk taxawaayu euh, sëriñam ak itam ma la ko waxee si taalibe même bu juumee da koy suturaal joyanti ko yedd ko waaye doo ko weer ci pénc bi euh, kon fu mu nekk ni man li may wax daal mooy wax dëgg yàlla njabootu sëriñ si euh, dañu war a gën a bàyyi xel fii àddina bi toll ci réseaux sociaux yi ni mu demee ak fii Sénégal toll tey ci euh, xëccoo bu metti euh, ci wàllu politique ak euh, maanaam gaaw a yàq der gaaw a soppi waxu nit njabootu sëriñ si ñoo war nañ gën a jël conscience ci loolu te delluwaat seen jàngale maam du rek seen i maam ñoom suñu maam la ñun ñëpp parce que ñoom seen maam maamu communauté musulmane bi yëpp lañ mm-hmm. ñun yëpp la ñu yar parce que lañ bind ñun yëpp lañ ko bindal euh, nañ doon yaree seen njaboot tam ku leen jege rek noonu lañ la doon yaree pas ku ñu bokkal deret ñoom seen njaboot moo rek taalibe hmm. kon man appel boobu laa leen di bu leen àddina jarul dara gis nga keroog wax naa ko ci euh, amoon ci mosquée Karak bi fii hmm. biñ ma waxee ci benn plateau loolu la wax ma ne imaam yi bu leen àddina jaral ak politique jaral li parce que lii bu jiite julli dong kaay leen ñu naafile kaay leen ma firi alquran euh, kenn du fa sànnante ba ñuy jël chaise di sànnante ak dugal ci ay xale sama yaram dafa daw man keroog insisté naa su le fait que ay xale yoo xam da leen war a indi jàkka pour yar leen léegi ñu indi ay xale pour ñuy sànnante xeer ci jàkka échec am na kon nag euh, te loolu aussi tudd nañ ci ay imam hmm. ku dem indi mbooloo fii ak ku bëgg a def discours politique ci jàkka jeeg nangam ak ku nekk faral fu la neex mais na ñëpp xam ne farak l'islam d'abord farak wut ngërëmu yàlla subhanahu wa taala ak man li may faral di wax d'abord Sénégal la faral d'abord hmm. avant may faral beneen sensibilité bu mu mën a doon kon nag euh, appel boobu laay lancé euh, du ma dugg ci détails yi parce que yoo xam ni xamuloo authenticité bi dëgg nan la demee mhm. te alxuraan wax fa tabayyanu na ngeen leerlu kon du ma dugg ci ay détails ñu may ñu may yedd ëllëg naan ma yaa ngi nii xaabaabal wax ci yoo mhm. xam ni dara wóorul ci mais li ma jot a dégg nga xam ni sëriñ ci boppam assumé na ko gis naa ni mënoon na bañ a demee noonu ci taxawaayu diggante sëriñ ak taalibe ak tamit dossier bi ni mu sensibiliser Euh, ak loo xam ni da ciy indi war waxu mbiru xaalis euh, daal lu doy waar. Hmm. ndax tey euh, yaakaar nga ne dossier bi peut-être bu demoon wala boog audio bi bu demoon ba tey ñu ñu authentifié ko kon complot bi Ousmane Sonko doon wax ci o début ba léegi daanaka kon day dem lu am de. non foofu duma fa dugg parce que dama ne la comme dossier bi ojo yi doo xam ci suba ci suba rek maa ngi dégg ñu naan Adji Sarr nee na day porter plainte gis nga kon. xam nga porté plainte sa sëriñ xam nga doy na waar euh, mais tam gis naa ci suba tam euh, koo xam ni nee na audio yu bëri la. kon man ndëgg sërëx yi def cee bari comme audio yu bëri la audio yi depuis kañ la lu tax depuis boobu génnu te nit ñaa ngi wax affaire preuve lu tax audio yi doog a génn. yu hmm. bees la wala lu yàgg la. donc du ma dugg ci euh, foofu mais alaa kulli xaal li am solo daal mooy am na jigéen bu wax ne dañ ma siif nangam ak nangam na indi ay firndeem ci loolu. yu leer nañ ne këtt ne jonn su ko indee yoon jox ko ak xam ak yelleefam ki nga xam ni tam dañ koo tuumaal moom tam na weddi tuuma euh, teg ko ci lu leer euh, yoon jox ko ak ak yelleefam foofu laay yem ci euh, mbir moom mbir moom